bokk yi maa ngi leen di nuyu di leen nuyu ci tuuru sëriñ bi taxaw bu baax xam li nga xam ne mooy li la war sa digganteek moom sa digganteek sëriñ Tuuba sa digganteek diine lislaam ndax loolu rek mooy li nga xam ne moom lañ doon dundal te moom lañ doon wane moo tax barab bi mu sos ko ci ndigalu sëriñ Tuuba kooku mooy borom Daaru Muxti di ki nga xam ne itam mbooleem nit yi àdduna yi nga xam ne jamonoonte woon na ñoo moom moom de moo leen daan dimbali ci moom la ñuy wuteeti ak wallu ci wet yépp nag ndax loola la ko ko may mayoon mooy dégg ndigalul Serigne Touba te jëfe ndigalul sëriñ Touba ba tax lépp loo xam ne soxla na ko fii mu toog la koy fekk moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne loolu moo lay xamal ne sunu borom am na jafe-jafe day am muy problème nga toog ba mu jàgg rek solution ñëw na cëpp ci sa kanam bett la mu ne kooku am na ku ko def kooku mooy yàlla loolu moom lañ koy ñaan nag ci bisu sëriñ Tuubaa bi ak borom Daaru Muxti bii mu defal jàmm réew mi ndax ñun ñëpp ci jàmm rek lañu ñu xaj te e, wax nga ko léegi képp ku fi mas ku fi mën a ñëw ginnaaw Macky Sall li wér wér mooy fii moom li fi nekk ku yàlla bind mënu ko fee jële da ngay ñëw rek adopté wu ci nu ànd koog yow waaye kenn mënu ko fee jëlee te loolu moo moo am ci biir kër yi diine yi yëpp kon lu ñuy tiit ak lu ñuy ragal amul fenn ku fi ñëw ku nekk na la liggéeyal réew mi tax a jóg na la jàppale njaboot gi tax a jóg def lu rafet ak lu baax na la tax a jóg rafetal sa digganteeg réew yi àdduna yi na tax a jóg ndax kat fii nu toog ci njabootu borom daaru mooti gi am na fi ñoo xam ne tey jii mën nañoo def ak yow mi passation de service ci li nga yor te te borom daaru mooti jur ndeyam wala mu jur baayam mën na koo am ci Modou jaan Fada mi mën na koo am ci Samba Ndiobène mën na koo am ci gouverneur ñëpp a ngi fi jàng yëpp a ngi fi diplôme yëpp a ngi fi te foo dem ci biir kër Serigne Touba yooya nga fi yar beeg teggiin yi nag mayeewul fu ñu toll ñuy xam ñuy wax di wax di def loo xam ne day tax ñu ne diw ñoom dañoo bëgg dara déedéet li Serigne Touba am ak Cerno loolu lañu bëgg rek ku nu ko sàmmule ku nekk nu ànd ak yow sàmm ko laneen la ca des mooy ida lam yakun lil mar'i fi dawlati mri'in nasibun wala xasrun tamanna zawalaha su nguur taxawee su fekkee ne danga xool xool amoo ca dara dangay ñaan yàlla nguur ga des ida lam yakun lil mar'i fi dawlati mri'in nasibun wala xasrun tamanna zawalaha da ngay ñaan yàlla kay nguur googu daanu ba geneen ñëw yàlla nag def na ba service bi nga xam ne moom nga yor keroog bi premier ministre ñëwee waxtaan ak sëriñ bi li nga xam ne doon nañ ko fi tawat lu yàgg a yàgg a yàgg mu jël ci ay taxawaay yoo xam ne jàpp naa ne bu fekkoon ne yaa ma ko gën a xam bu fekkoon du woon màggal gi xataay boo mu xat na gën ne ñu tàmbali ko dafa bokk ci li nga xam ne day rafetal aw àndin di rafetal mujjug jëf ndax loolu bu ko président defee te ñu toogoon fii daaw ma ne leen dama bëggoon day buy dem mbedd yi ci biir dëkk bi mu ñuulal ko defe naa noon laa ko waxee woon fii mu ñuulal sunu mbedd yi laa waxoon sunu mbedd yi suuf yi ma ne leen 2000 ba léegi benn mètre bu ñuul sax amuñu ko ci ci goudron ay nit bu ñu dee ànd nañuy waxante dëgg ci seen biir bët ak bët loolu mooy tax kenn ku ne xam li la war sa ak sa morom du da nga koy wax ngir naa bëgg lu yàqal diw wala naa wut ci moom li ay chantage wala dara déedéet loo xam ne boo ko defee ki la ko def loo dala dala ko sëñ Mahamadou du na ko léegi ci commission commission bi mu yor ma maanaam nit ki bu la bu la jëfloo dafa bëgg ñu gërëm loolu loolu moo tax moo moo tax ñu koy wax te nag bu nu toogee fii di wax te daaw bi ñu toogee fii ñu ne yaakaar nañ ne bisu màggaluk Daaru Muti bu nu ci yàlla yóbbu yóbbuwaatee dana ne tey la woon euh, élection yi ñoo ko ànd ñoom ñaar wala démb la woon loolu yàlla indi na ko yàlla mi mën a jubbanti ay mbir nag te xam ne mooy mu dabbirul umur lu am lu nekk def ko soob moom waxuma la sax dajeeg bisub wate waaye bisub dibéer sax génn nañ ko far bisub altine leen am ak talaata waaw ñooñu nag nga xam ne seen mbir ñoo koy yoral seen bopp ñooñu ñoo doyloo ñoo jara doyloo ñoo jara ñoo jara ñoo jara ñoo jara wóolu ñoo jara àndal te nag du la yàqal dara ci mu mudaaraatu bi nga xam ne moo war sa digganteeg ñi nga ñi nga seqal kon li war ci suñu diggante xam nañ ko te ñu koy dox te danañ ko danañ ko sàmm nii mu waree li nu bëgg rek mooy képp ku fi nekk ku nekk mu joxal nu war ma sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mii ku fi nekk ku nekk mu téyal nu sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mii xam nga mbir bu fekkee ne boo jàppee ci catle rek yooyu yër nga lépp loolu day noppale ñun boo téyee sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ rek téye nga borom waa borom daaru yëpp soo ko defalee defal nga leen ñoom ñëpp fii toll ni ñuy wër di sax boo yemoon ci kër sëñ ba rek doy na day aada yu ñuy def rek boo ko defee ci yoonu murid def ko sëriñ mu Muntaxa defal nga ko murit yëpp mu muy muy lu yomb téye waaye nag jamono dem ba àgg foo xam ne kenn ku ne bëgg ne manum lëm sa ananie dikk égoïsme lu du jariñ dara nañu jiital li war a jiitu sàmm li ñu war a sàmm ki war a nekk ci kanam ne ci kanam su ko defee rek lum nu war a fegal dana nu ko fegal waaye ki nga xam ne moo war a nekk ci kanam di la fegal li ñuy tiitak li ñuy ragal ci kanam boo ko jiitu booy tàbbi ca loolu du ko yëg te loolu booy xool di ko gis li li ñuy dimbale rek moom mooy nu jiital ki nu war a jiital teg ko fi nu ko war a teg jàpp ko ni ko war a jàppee loolu lanu gëm fii te moom la ñuy dund di ñaan ñépp kenn ku nekk fa mu nekk na fas ci xolam ne jàmm ji nga xam ne moom la réew mépp di wax te di ko bëgg su amee ci dënn boobu lay génn moom kenn bu kenn xeeb kenn sa sa ñaanu bopp ñëpp nag ak ku dégg sunu kàddoog fu mën a nekk ndax Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daf koo wax dafa wax ne la yuradu al qadaau illa bi sadaqati wa du'a ñaan ak saraxe moom rek moo mën a fànq ab dogal te lii sikki lépp ci nit ñi rek la nekk waaye bu kenn ko ne raxasee sa xol jàpp ne yow lii sikk ci yow la ne jàpp ne sa ñaan moo war a nangu bu ko defee rek ñëpp danañ gis ne sunu borom nangul nanu ndax li am fii ci ci pas-pas li am fii ci diine bari na réew mooy dëgg defe ne am na fa ci turu rëy waaye amuñu ko yow yaayu ministre bi fi teewal président ànd ak délégation bu mat ñu dikk ñu ne leen kat dañoo noddu nañu julli ba noppi loolu am na lu muy tekki lu rëy du lu tuuti ngeen nangu ko rafetlu ko ànd koog noonu def ko muy aw jàngale woo xam ne dañ ko war a dañ ko war a dund kon loolu dafay wane ne ñi war a ànd bu ñu war bi bu ñu àndee ci li ñu li nga xam ne mooy lay dëgg faw sunu borom moo leen di moo leen di gindil boppam kon nag euh, bis bi mën naa mën naa faj aja yëpp yàlla yàlla suñu borom faj sunu aajo yëpp bis bi mën naa indi jàmm ci réew mi yàlla na ko yàlla defal décret bii nga indaale ñu jox ko sëriñ bi li nga xam ne mooy ndam li ci sëriñ bi am na nekk ndamul yoonu murit yëpp ndax ci sëriñ Touba la bàyyi ko te ci moom lay dellu diggante mook boroom daarul moote ndam loolu itam président mi ko signé moom itam yàlla bu mu ko rëccu lu tax du ko rëccu mooy donte mission jeex na it te réewul mën a am leneen loo xam ne lii dana ko dund ci dundam te bu àndeek jàmm rek bu sooba yàlla dana mel ne kay mook mu nekkoon yooyam ndax jàmm moom foo mën a nekk te am ko rek baxana loolu mooy li nga xam ne war mën nañ ko koo ñaanal di ñaanal yéen ñi ànd ak moom it li ko ci dese ak nu mu mën a toll lu leen mën a wa lu waay man mën a wax lépp nañu rafetal andiin wi ak defin wi ba lépp sell rek mooy li ci am solo ñu tànnin woo xam ne tànnin wu rafet lay doon xam nga sëriñ bi moom képp koo xam ne réew mi tànn nañu la na la leer ne taalibe sëriñ baa ngi ci ñi tànn kooku kon li sunu kilifa gu baax nga daan ñaan rek mooy ki gën ci nit ñi ak li gën ci nit ñi yal na ko sunu boroom def ndax kenn mënul ne diw sàngam ñoom dong day ñooy wateel diw diw sàngam ñoom dong de déedéet amut foo dem fu ne njaboot gépp nga fa kon kay lu ci am ku nekk wërsëgu kooka lay doon waaye daal nay nekk loo xam ne day jig réew mi te day gën ci réew mi te su boobaa itam ku làmboo loolu xam ne mooy li nga xam ne moom nga war a doxal su boobaa sunu borom dana la dimbali nun day fii la ñu nekk te duñu fi jóge ba mukk mooy def Sëriñ Tuubaa muy suñu lépp borom daaru muuti di suñu bunt ci moom te ngërëmul sëriñ Tuubaa ak borom daaru muuti rek la ñuy wut waaye nag kenn ku mën a doon ku nekk soo ñëwee ci noonu cër ba nga xam ne moom nga yàlloo danañ la ko jox la war ci suñu diggante danañ danañ danañ ko def ba ma sëkk di feddali cant yi ak ngërëm yi ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ àndu doon liggéey bi waaye yéen ñi itam nga xam ne yéen teewul teewal président ci jataay bi te e, mu nekk loo xam ne dafay mel ne buñ ko doon mën a wax nañu déggee woon mu wax ci màggalu Tuuba ak gàmmu Tiwaawan moo di dafa mel ne daf doon war di tàggoo waaye itam loolu dara nekku ci wax nga ko léegi nguur gu dul goog yàlla du du du day jeex nguuru yàlla rek mooy sax di wéy te loolu boo ko gëmee noonu dafay dafay woyeef ci yow ka nga xam ne nag moom dafa jàppoon ne diw mii moom bu ñàkkee lii duutu tekki dara kooku moo war a tiit te loolu faaw muy am nag day am am ñoo dañ jàpp ne diw mii de bu moom bu ma ko gisatul xaw ma fu ma jëm te loolu déedéet da nga xam ne yàlla mooy ki nga xam ne boo ko gisatul it ma nga fa te du fa jóge nag ba mukk yàlla sàmm ñépp yàlla aar ñépp def jàmm ci réew mi